asalaamaaleykum ñu ngi ngi tokkoor ba nii de. Hmm? Euh, lépp la leen di wan incha allah. lépp waaw te lim leen di wan nag lu am solo la pourquoi parce que. mooy gis ngeen rek fii ab jaayante la tey moo fi ne. dañu woo waa Kër Maam Cheikh ngir ñu ñëw gas fii. ah ñu war fi placer ay tuyaux yoo xam ne DN 400 la. macha allah ak DN 600. pour évacuer ndox mi une fois pour toutes une fois nga xam ne léegi dootul nekk taataa bu fii nekk. waaw moo tax daal ñu tase fi tey. mais Abdoulaye jërëjëf waay ci liggéey bi. jërëjëf sëñ Modou Mamoun logistique liggéey bi rafet na macha allah. kon ñu ngi nii tokkoor bi comme ni ko wax ni ko sëñ waxee rek ñu ngi tokkoor ba nii. war a départ ci visite euh, ingénierie bi. ingénieur yaa ngi nii mit euh, agsi nañ moom sëñ Daouda sëñ Seck sëñ Ibrahima Diak waaw sëñ Gañ kon defe naa ne tawféex de. fleur yaa ngi noonu di manque ndox mi nga xam ne moo fi nekkoon liggéey bi daal tàmbali na ña nga jàpp. ñu bi de. ñu ko rëjële noonu lañ ko fas yéenee gase ba station Darou Khoudoss ba incha allah mbokk taalibe yi nag ñu ngi dolli ko rek ñu fas yéenee kenn ku ne ña xam dem ci liggéey bi. ولا تكفي عني كل شخص وجاك فاسلم سريعا يسريد والتزفا جملة ما يفسدان يدي وعن داري سريع عن نيسوان ولتدخل المسلم في يدي وفي داري وثابتا حب الهادي وفي وآل من وآل من